parna na si prérogative yi nga xam ni itam euh, constitution bi may na ko exactement alors attends euh yifi tamit est-ce que du jurat li nga xam ne que modi di parce que dem la réduction des comptes Ousmane Sonko souligné na ko Bassir aussi souligné na ko à travers li nga xam ne que modi euh, justement leur déclaration. comment. Hmm. démb euh, ki nga xam ne que modi di Diomaye mi insisté exactement sur la réduction des comptes Gork bi aussi ki nga xam ne que modi Ousmane Sonko aussi ñewat na si li la c'est la première fois que énumérer en conseil des ministres et ça ni que autorité jël à bras corps concrètement non, non, même en dehors des caméras hmm. et des micros buñ la non, d'accord pour ko non, mu goxi ah, Non non non non non d'accord

jox ko jox ko ay ñeneen ak ñeneen ne leen doxal leen ñooñu ñu jox leen xaalis bi ñoom ñu jël xaalis bi dugal ko ci seen poos jaawale seen poos ak poos askan wi ngeen ne kenn du ko fa kenn du ko fi waxee yan yéen a wax loolu les politiciens arrogants là qui sont dans l'opposition ñoom ñoo ne règlement de compte la fayantu la kenn du ko fi waxee on parle du détournement des détournements mais enfin yaa gis. yéen ba pare ngeen ne kenn du fi waxee. Eh, yaa gis détournement exactement yaa gis détournement. dama ne. waaw ah. il faut ngeen bàyyi yone def bah, liggéeyam. dañuy laaj Arfan ma xam Arfan dafa gis détournement wala. du détournement du man makoy wax. ok yone mokoy wax. donc da ngay né supposé détournement. oui supposé la wax. Bah, da ngay préciser. d'accord supposé noko ko noko an alors nañu bàyyi yone def liggéeyam. Hmm. yone nañu bàyyi yoon def liggéeyam tranquillement sénégalais yi bañ a am sa sentiment de remords la parce que tey ñuy critiquer Diomaye dinaa noo fayantu la dégg naa ay ñoom Thierno Alassane Sall lii di wax Il non a mbiru la dëgg j'ai du respect envers lui Thierno hmm. Alassane Sall. Euh, si même ñoom. Euh, mais les mêmes Thierno Alassane Sall la un Mbaye même Abdoul Mbaye nee un nee na. ma ñu un même Abdoul Mbaye wax na les Abdoul Mbaye un lu ñuy wax Alassane Sall la. ils se contredisent. ñoom a un xaj. dem ci YouTube dem leen ngeen génnee ay kaddu ñoom Thierno Alassane Sall ak nyom euh, Abdoul Mbaye Macky Sall bu ñu leen dàqee jamono boobu demal ngeen ngeen jëndee seen vidéo yi il parlait correctement et même chose que Sonko ak Jomaay lu ñuy wax ci jamono bi ni ah tey ñoom d'accord ñu parce que ñi ñoo fallu lolu moy iñaan dama ne demal ci YouTube nga génnee ma Thierno Alassane Sall lu mu doon wax ci jamono bagn koy daxé lu wax. nga génné ma Abdoul euh, mbay non non lu wax Thierno Alassane Sall lu mu wax. xam nga mën na la génné vidéo yi. fii ci YouTube bi. mais c'est pas élégant. Hmm. man duma toroxal nit. dama né mën na la génné vidéo yi ngi koy yor fi ci sama téléphone YouTube demal nga génné ñom Thierno Alassane Sall lu ñu doon wax ci jamono bobu parce que Macky Sall jamono boobu daf leen dàq ñom ñoo né ñom ñoo démissionné Macky Sall né ne moom moo leen dàq demal nga génné sen discours yi ñu doon tenir jamono bobu demal nga génnee discours Abdou mbay yàggul dara il y a six mois wala neuf mois Abdou mbay lu ma doon wax ci Macky Sall ak son régime tey wax nañ ci ay réduction des comptes ñi wax benen affaire parce que a ñoo fallu ci digënté bi il faut arrêter ça aussi nit fay cohérent nit da ngay cohérent dans ta démarche il faut il faut que tu sois cohérent Thierno Alassane Sall doit être cohérent Abdoul Mbaye doit être cohérent gis nga politique boo bëggee ñu naw la boo bëggee ñu ñi naw la mm. bàyyi la xel ci politique mm. da ngay cohérent boo mattee bul bàyyi loolu bokk na sax ci lu jàppale Ousmane Sonko Ousmane Sonko dafa doon xeex ak Macky Sall à tout prix toj nañu otoom barricade ko gars yi jàpp ni que peut-être mën na flexible mm. ne Macky Sall léegi je le tablier léegi léegi garaawul léegi damay damay damay soumettre mais Ousmane Sonko defu ko ñu bëri tax ñu sopp Ousmane Sonko ci méthode boobu ak lu mu metti metti metti fi nga japp rek jappal fofu bul mais man li d'accord ci ay politiciens bu waxé ni ci jamono Macky <laughs> bu suba ñu changé ay version ñu changer ñu renverser veste. mais euh, constance.

mais justice mooy def liggéeyam amaana ñoom lu ñuy yàkkamti yàkkamti sénégalais ñoo leen gën a yàkkamti parce que sénégalais yi dara ñoom Pape Malick Ndour ñoom ñoo géré woon ñoom lu ñuy yàkkamti yàkkamti ñun ñoo leen gën a yàkkamti parce que ñun ñoo bëgg ñu waxuñu ñu ñu édifier édifier ñu suñu alal fan lañ ko dugal fan lañ ko dugal donc ñoom jarul ñuy parax parax yi. mais dama bëgg ñu leeral leen rek benn yoon ñu jàll si leneen xam nga ñoom lan lañ yàkkamti. Hmm. dañoo namm voyage. ay dem ay invite invité sen djegi dem taxawalu ci ay mbedd Dubaï même pas non retrouver cette liberté là non non non mais enfin ne euh, retrouver sen liberté yoy lañu yakamti parce que ils sont dans des milliards yor nañu certes dans yakamti ñu len frontières yi affaire yi bañu ne ils ngeen voyager ñu yakamti gawantu ab invité duggal len ci avion yobul len dubai xale bu gën a dàq ci casting sénégalais yi ni seen film yi ni xale bu gën a xees bu gën a rafet ñu dugal ko ci avion yóbbu ko Dubaï ñoom loolu la ñu yàkkamti retrouver seen liberté yooyu la ñu yàkkamti mais enfin nit ki moom ak nu mën a am liberté moom liberté la am nit ki moom liberté la am mais rédition des comptes mais enfin ak lu mën a xew nit ki liberté la am mais rédition des comptes bi ah. ça prend son envol <laughs> ça prend son envol alors c'est clair moom mu ngi dox ndànk-ndànk di jëm si ci ñoom jarul yàkkamti hmm programme yakamti xam nga parce que lan jara hmm. <laughs> c'est normal parce que mais programme dossier euh, les officiers de police judiciaire les dossiers là ñu enquête les les officiers de police judiciaire la section de recherche la et autres mm, mm. mais loolu kon jarul yakamti mu ngi alors c'est exactement <laughs> par rapport la réduction comptes